dar ci sëriñ bi euh, la arab arab bi ma waxoon ni nii ma mel nii rek laa war a mën a mel ñu laaj ko lu tax mu ne ñi ma meññe tax ñi ma meññi mu ni samay jeexital moo lay tegtal ni man nii rek laa war a mën a mel inna athaarana tadullu alayna fanzur baadana athaarana soxna Jaara Buso mi nga xam ni mooy wuy juru cheikhul xadim radiallahu anhu moom laa bëgg nga ñëw wax nu soxna jaara dañu wax ni dundam dafa gàtt moom soxna jaaratullaahi bëggoon ku toll nii ku mel nii ci ki mu génnee kooku war nañoo xam mooy kan sëñ Gana su ma la doon laaj tey kan mooy maam soxna jaaratullaahi nga bala ñoo ñëw ci Seexul Xadiim soxna Fatou maa ngi leen di nuyu soxna ay eh, borom jay na ba soxna jay na ba mm-hmm. ak soxna ndate ngi leen di nuyu bu baax waaw eh, laaj am solo muy soxna jaaratullah na Mariama Bousso day tàmbalee ci rek ne loolu sax du aw turam woo xam ne mooy turu cosaanam wala wu ko ay way juróom tudde loolu jëfam moo ko fa yóbbu ndax sëyidatu sayidatuna Mariama moom lañ ko tuddee mi nga xam ne mooy way juru sayiduna Isa muy koo xam ne silsila bi mu bokk boo ko toppee day dellu ci fatimatu bintu suul nga xam ne kon ak sharaafa gu wér ci la bokk boo toppoon askanam ni nga ko waxee mu gàtt aw fan lool waaye rëy ay jëf te feeñee ci béréb yi ak fi mu tàmbalee liggéey ak fi mu wàccee di lu di lu lu séddalikoo ndax mi ngi feeñ jamono ci 1833 ca mbusoo bi ga ca jolof mm-hmm. ñu bàyyi ko dëkk mu ñuy wax fuuta ca golere mu mel ni it bu feeñee ca mbusóobe hmm. tàmbaleeb liggéey ci Mbakke Bawal dëkk bi nga xam ne maam maaram moo ko sanc maam maaram Mbakke sëñ Fallou ne la bu ñuy lim bu ñu jàgsee mooy àddinaan hmm. ci noonu hmm. maam maaram moo ko sanc fa feeñee jamono moom fala la tàmbalee ab liggéeyam ndax fa ab taawam feeñee jamono di maam borom Cham di maami sëñ bi toog di ak Seyxul Xadiim fa la feeñee ca Mbakke ab liggéeyam it mate poroxaan kon da ngay wax euh, Jolof wala nga ne Fuuta wax Bawal mhm. wax Saalum mhm. ci diirub fanweeri at ak ñett fanweeri at ak ñett rek la dund la dund <laughs> waaye ci biir fanweeri at ak ñett yi. Mhm. bi mu feeñee comme moom néeg bi mu bokk. Mhm. wala askan yu mu bokk dañoo nekk askanu xam-xam. muy Bousso Mbakke. ndax as maam jur Mbakke la sant. Mhm. askanu Mbakke ak Bousso la askanu xam-xam. a géeju teel a wattu alquran nga xam dañuy wax ne dala ilul xeyraat Muhammadul Jazuli bi mu koy wattu sax demagul kër bind ay kaamil yu bari. yàlla boole ko sang bu ñuy wax sëriñ Mor Anta Sali muy qaadi Mamar Anta Sali Cheikh Ahmadul Bachir Mbacke ibnu Xadimu Rasul andil lu ci ab portale la ma la waxoon daawit dinaa la ko waxaat mooy damay bëgg lu ma ci wax wax ka ko wax ak fan ko wax maanaam loo ma wax rek wax la bind ma. wax la waaw bu dee lu bi bind naa ne lii la bind. Mhm. wax la danaa la wax kam wax. Mhm. sama papa Abdou Aziz Mbaye moo doon wax loolu. man loolu mooy li wér ci moom. lu ma la wax wax la bind ma. Mhm. Serigne Bachirou. dafa am portale bu bu bu bu bu yéeme bu gàtt bu mu def ci Soxna Jaara. dafa wax na Soxna Jaara. kaana sayyidatuna Maryama jaaratullah saalihatan. saalihatan afifatan diiniyatan. d'accord. dafa nekk saaliha mooy ko set wicc ku sell ku matale nekk ku fegu nekk kook diine nekk nituk nitug sunni nekk koo xam ne dafa taxaw ci warteef yi diggante mag boroomam waaye digganteem ak ki ko yàlla booleel muy Sëriñ Mbàkke Mor Anta Sali ba mu nekkee ci diggante booba it da caa boole woon nag sëñ ba teg ci ne wa kaanat turabbi awlaadaha ala almuruati wa taharat wa diin wa kathiran ma takki alayhi xikaayat salihin wa taqul lahum bi salihin saalihin qiyaamu layl sëñ ba ne na soxna si moom bu daan waxtaan ak njabootam da leen di wax ne da leen daan yar ci mbañum rus ak diine ak làpp bu daan waxtaan ak ñoom it da leen di da leen di wax na gaa ñu baax ña daan def danaan leen gaa yu baax ya de ñu tëdd guddi gaa ñu baax ña day daawuñu nelaw gaa ñu baax ña day bu su seddee guy ba nit ñi jëkkalante seen i lal ña nga ci seen i dara loolu la doon wax ak njabootam. Hmm. sëñ Bachir nee na loolu ñaw gi sëñ Tuubaa ñaw ak teel a dégg loolu moo tax bu guddi masaa jot sëñ bi booba dala gudd jàng juróom-ñaari lay war a toll sega mat na dégg na wax gi soxna si wax day ñëw temm ci ëtt bi di di naafile ba fajar moom sëñ Tuubaa ngir dégg wax ji nga xam ne moom la soxna imam al Mariama bu so wax te loolu ibnu ibnu mualla benn naar bu jox ibnu mualla dëggal na loolu ndax dañ ne saada tiflan wa rasulullah laysa fihi man yusalli bi sabati awamin loolu kon soxna si di yar ak njabootam ci melawoo maanaam Cheikhul Khadim bi mi am jëkk mi am juróom-ñaari at lay taxaw dina fi la guddi guddi guddi ndax dégg wax ji soxna si di wax كان تربي أولادها على المروءة والطهر والدين وكثيرا ما تحكي عليه حكاية الصالحين وتقول له من الصالحين قيام الليل guddi la ñuy taxaw moo tax sëñ Tuubaa ci juróom-ñaari atam lay fanaane naafila kon teel naa dégg loola te booba dalagul te booba dalagul dalagul nga xam ne kon dégg wax ji soxna su di wax loolu la loolu la dégg mu tàbbi ci melowoo di ci tàggat ak njabootam waaye lii nekk ay jikkoom benn waykat daf ñu ko tagg wax ne lëxal alaamaatu moom soxna jaara mm-hmm. lëxal alaamaatu laa yaxfa على أحد صوم صلاة دعاء ثم استغفار صبر حياء وأخلاق محببة طيب الكلام وما بالقول مقدار دانا شوخنا جارا بون لا دون لاج كوم دون نيل بوروم جيكو نبول لا تا جيك موي كو مانونو جولي لا شوخنا جارا جوروم فكي جولي دان جولي اي نوافل اك فرائض تا كامل القران بي مو نيكون نافله ba noppi moom soxna jaaratullahi kaamil bi kaamil bi ba noppi julli yi bu boolee nawaafilam ak i faraidam dana taxawe juróom fukki julli moom soxna jaara di saxoo koor di ñaan yàlla di jéggulu waaye mu ne nag sabrun ku mënoon a muñ la te xam nga ne sab muñ ay aqsaam la waaye melo wu ci nekk ak na mu koy muñee moom muñ ci am muñ ci ñàkk muñ ci tawat ku mënoon a muñ la koo xam ne dawul jàmbat moom soxla jaaratu daawul jàmbat daawul jàmbat dafa mënoon a muñ waaye xayaa un ku bari woon kersa la allahu akbar dañuy wax ne bari na kersaam eggoon na ci mhm. bu masaa sëñ Mbàkke Morante Seli mhm. muy ki ko yàlla booleel bu masaa di génn néegam bu ko soxla si séenée day sukk bati woom ba mu jàll mu door a jóg ngir wormaal ko ak kersa gu bari gu nekkoon ci moom wa axlaaqul muhabbaba nag am jikko yu rafet jikko yu teey mhm. jikko yu sell waaye taybul kalaam yi doonoon ku teey ay wax te dalle ko wama bil xawli migdaara tay waxam sax daa bëriwutoon moom soxna jaar mu waaye nan la doon mel mu ne alaylu qaaimatun wala yowmu saaimatun turaaqibu rabb ijlaalan wa ifkaara bu guddee moo ne day rooti de moo ne day taxani de moo ne day soq de moo ne day wal de waaye bu guddee mu ne ñoŋ kaamil ba dinaa moom soxna jaar bu xëyee di woor te du yàq dara ci la mi def alaylu qaaimatun wala yowmu saaiba turaqib rabbu ijlaalan wa ifkaara guddi gi day taxaw bëccëg bi bëccëg gi bëccëg gi di ko woor boole ko di liggéey loolu soxna jaaro daan daan boole waaye daawul toog ci grand place talazumul bayta xawfan la baari bi taaxatin wa ibadatin wa afkaara biir néegam la daan toog lu fay nekkee jàng alquran ak tudd yàlla borom bi subhanahu wa taala waaye ci biir ñim nekkal toxof yi wa tutaimu miskinan wa sa'ilatan tuwasu rahma ikhfa'an wa itwara dafa mënoon a joxe ñam manal lele di jokk ak bokk ci lu neub ak lu feñ mo waral ñim mu bokkaloon ëttu sëñ Mbàkke Mor Anta daana jël ay sir mom soxna ci di rabbulu bu génnee kum ko jox danaa la ta Njaay la ko jox te ta Njaay du ko yek kum dajel nga ne ko ta Njaay moy wujuru maam Cheikh Anta ak sir Afiya kum dajel nga ne ko Mbàkke yiri yi rafet na mu ne lol de Mariama buso te du ko mom du ko yek sax day diko joxe kum jox na la ta Njaay la ko jox doon ko mën a jokk ak bokk daana rooti ci teen bi li di ko njoolu ba ndox mi jeex jamonoom dañuy wax bul ma yan fépp jaara gi ngir mën a root melo woowu la boole woon moom soxna jaaratullahi maam Mariama Bousso mu bokk ci ay meloom it euh, doxin wu sell wi nga xam ne amoon na ko Serigne Moussa Ka dafa am bayit wu wu mu day boole topp ndigal ak topp ab sëriñam ak topp yàlla bu wér maam jaaratullah mhm. soxna jaara day topp yàlla borom bi subhanahu wa taala boole ci topp sang bi ko yàlla boole Serigne Mbacké moo doon seli nga xam ne ndigal du ko bàyyi waaye la ko war ci digganteem ak boroomam it da ko def doon koo xam ne it melo ko yàlla jagleel mu doon ku jafe doon soxna soo xam ne ku mën a denc mbóot la mën a denc secret moo tax ku tedd ki Cheikh du Bamba mën a jaar ci soxna jaaratullahi ma Maryama Bousso mu mën a muñ nitu yàlla ku toll ni Serigne Touba ak daayoo bi ko yàlla jagleel ak yi muy feeñal nga xam ne bokk na li gën a doy waar mooy bu soxna si bu sëñ bi masaane ci ginnaawam mm-hmm. bu sóoboo mbedd maanaam mbedd nga xam ne day jaar ci mbedd dégg fa ñuy def maanaam mbedd ma benn ñu fay def lu naqar yàlla mm-hmm. sëñ Basiru neen day baj baji ci ginnaaw soxna si ba mel ne ba nar a gaañu mm-hmm. nga xam ne ala infialan shadida boobu ci zahir ci zahir mi ngi ci ginnaawam waaye baj baji ngir bañ a dégg la ñuy def ca mbedd ma te jaaduwul ba soxna si teggi mbedd ma ba déggatu ko sëñ bi door a dal eh. nga xam ne te du tax mu nettali dara ngir melaw woowu mu ci boole waat ak doxin woowu mm-hmm. bokk ci melo yooyu ko yàlla jagleelu soxna jaaratullahi maam Mariama Bousso mhm. ma lii seen maam Samba Jaara Mbay li wax ne min al amarati kawnul ummi abida mhm. mutiaatan rabbiha fawqal mutiaati mhm. doonoon ku daan topp yàlla borom bi subhanahu wa taala di ko jaamu di rafetal ci mbooleem kum nekkal nekk mën a denc mbuutam moo tax euh, bi sëñ bi feeñee jamono li mu wax ak li mu ëndaale da koo garde ak fan lay jaar nekk ci melo yu rëy yooyu ci digganteem ak sëriñ Mor da ngay dégg ñu la daanu na ci sàkket maanaam téye naw sàkket loolu lu wér la xuru mbàkke ngay dem moom la ñuy wax nja ci xuru mbàkke xuru mbàkke mm-hmm. mm-hmm. la foofu la njëkkoon xam da nga dégg ñu lu ëpp ci ndaw sëñ bi mm-hmm. xuru mbàkke googu sëñ bay jaxate nekk fa la amee woon fa la téye woon sàkket bi sëñ pap sëñ mbàkke morante sëriñ sëriñ ñub daara la sàkket bi daanu ba ma morante sëriñ mi ngi jàngale euh, fànne xam-xam yi kooku baxrul ulum la lañ yor yor daara. kooku kooku mooy université bi gën a rëy. <laughs> professeur loolu ba ko ba ko ba ko ba ko ba ko ba ko xaadi ma markan di tagg sëñ Tuubaa naan ko innal xuruuna bi la dunya azimatihim fi raxatayka li yanqaadu ma anqaadu hada la ahmada bamba kaale waliduhu baxrul ulumi namiril ma i mambuura sëñ ma markan dingiraay moo ko wax loolu sëñ Tuubaa la ko wax Mamour Anta Sali sëñ Tuubaa la ko wax mais ci biir dégg nga li mu ko indee bàyyam kaana waliduhu baxrul ulumi namiril ma i mamruuda boobu fukki at ak ñett la sëñ Tuubaa am kaana waliduhu baxrul ulum baxrul ulum namiril ma i mamruuda <laughs> sa ak ñett la sëñ bi am booba sëñ Mor Sëriñ euh, sëñ Mamar dafa seen dafa gis sëñ Tuubaa daan na ndaw lii de mbooleem xarnu yi siècle yi ñëw yëpp yàlla teg na ko ci ñaari ténxam te booba sëñ Tuubaa bindagul si maamul war a asi la laay fi yet yi daan na nag kaa hada la Ahmada Bamba kaana waliduhu baxlul ulu namiril ma i mawruda muy muy takk sàkketam mu Mamor Anta Sali mooy takk sàkket bi jubbantiw sàkketam na soxna jaara Mariama téyel ma soxna Mariama Bousso teewu sàkketam mu tàbbi ci biir ngelaw li sàqi <laughs> xiin wi sàqi sëñ Mor Fatu soxna si téye sàkken ngelaw li ànd ak moom di daanu di yëkkatiku ba fajar di jot muy génn seen ko muy ñuul mu ne kii kan la mu ne ko man la Mariama Bousso mu ne ko loo fiy def mu ne ko Mbàkke da nga ne woon téyel te néegoo ma bàyyi allahu sëñ Mbàkke dafa duggaat ci biir néegam tudd yàlla borom bi subhanahu wa taala ñaanal ko ñaan gu rëy rëy rëy goo xam ne kenn mënu la misaal lu mel noonu ci doxin wu xam ne amoon na <laughs> moo tax waykat ba sana wa rida wal faqri tabshiratan xad xaaza ibnuki maa lam yahwi abraaru te da ko jëkkee ne ko tilka safiyatu arda allahu sumataha dunya wa uxra bi alaana wa isra soxna si yàlla gërëm na ko lu ñëpp teg seen bët muy adduna ñëpp teg nañ ci seen bët ah loolu du jar wax baatin demal poroxaan jigéen jom dëkk ngoog soxna jaaratullah demal ci sa bàjjan ya juróomi téeméeri maam jaara ñooy jàng ca daaray poroxaan kenn du fay amul diwo la jur amul fe nga bok mam jaara ko tuddu sa badjana la yor <laughs> nga mokkal alxuraan ko jur muy doomi soxna yow ngay soxna 15 ah, eh, millions par mois sëñ mu taxaa koy seere 15 mm-hmm. millions par wèr ñoo lay lët ñu nekk poroxaan poroxaan ko mm-hmm. ñi nekk ci liste yi rek mat na julli nangam mam jaara mm-hmm. waye mam jaara ju nekk la sëñ Moustapha Bassirou programé won woné né mam jaara ju nekk bu doon soxna ci dafé nekk ku am doom tuddé ko ko dang ko jox mu yar ko kon noko ko yaral ñaata mokkal ba ci concours yi ngay gis ñu koy def ci alxuraan gis nga maam jaara yu bari yu jógee poroxaan mokkal ko <laughs> te 15 millions mooy seen dund par weer moo koy joxe moo koy joxe <laughs> nga xam ne taalibe yi ci dox ni sëñ Isaaxa defoon nga xam ne mooy prénance boobu mm-hmm. murid di jaayante ci nit a volontaire rek engagé kenn ku mën a dundal benn benn maam jaara wa nangam nga mokk tax amul kii doomi diw la amul kii doomi diw la maam jaara nga tudd rek ñu yor la seere la mm-hmm. kon jëf ji feeñ na ci àdduna mm-hmm. waaye mën na ko ëllëg nag moo tax nag mën na ko kon bikki sanaa wari wal faxri tabshiratan xad xaaza ibniki maa lam yëfi abraar gàcce ngalaama yaa yay bàkku yaa yooy kañ ya ak ndam ya sa doom làmboo na loo xam ne kenn amu ko ci yàlla xad xaaza ibniki maa lam yëfi abraar te melokaan wu réy woowu mu nekkoon ku doy waar moom soxna jaara Rasulullaahi maam Mariam Buus mm-hmm. soxna jaara ku mënoon a jàngale la ku mënoon a yare la soxna jaara ku sàmm la woon ku bari mboot la woon xoolal Sëriñ Tuubaa fi mu toll ni ko boroomam jagleel mm-hmm. way jur wu sell bi tudd Mariama dem ba tudd jaaratullah nga xam ne fi ne néew na luñ koy wooyee Mariama waaye liñ koy wooyee mooy jaaratullah jaaratullah lan lay tekki mooy jigéen ji dëkkaale ak yàlla defe naa Oustaz Assane yéen ay gëstukat ngeen mhm. mais defe naa ci biir awliya ullahi yeeg aqtaab yeeg nujabaa yeeg ñi ngeen xam ku ci bind sax tudd jaarullahi góor gu tudd ak yàlla dëkk ak yàlla defe naa xamaguma ko dégg naa fi xot boog taajoog far boog sultaanoog nangam waaye defe naa soxna si moo tudd jaaratu ahmadu tudd jaaru parce que ashakku abadan fi kawni jaaral badi ajaban lil kawni bi xidmatil muxtaari qad sirtu jaara loolu shakarin li jamili inda jundihi nga xam ne yaa xayra jaarin xan ma kastu indaka mhm. loolu kon jigéen ju dëkkaale ak yàlla féeteeg boroomam ndax xam li tax nga mën a dëkk ak sa borom. Mhm. jëmmi julleegu woor. waaye moo amala xasana boo koy maye. Mhm. defe naa Sayyiduna Abu Hurayra mhm. nettali na xadis boo xam ne. saxaabi dañuy ñëw ci ne ko inna fulanata kaanat tasuumu nahaar wa taquumu layl wa tuusi jiraanaha bi lisaaniha qaala nabi laa xayra fiha wa hiya fi naar dañuy ñëw ne yonent bi ah soxna su baax a nga fee soo xam day woor di julli waaye dañoo seetlu làmmiñ wi daa ñaaw day xas ay dëkkandoom rek yonent bi ne yéen a ko gën ma nga sawara kon mu amal xasana boobu da ko ca boole woon mhm. mooy di jéggale di jëllale mhm. di muñ di bale te du tooñ ba noppi nag wëlbatiku nag féete féetewoo ak boroomam nga xam ne maam Samba Jaara Mbay nee waxtu sedd soxna jaara moo mënoon a seere mag ak waxtu tàngoor nee na bu sedd ma saa jot mag ñim nekkal day wut am ngànj maanaam daa mënoon a daa mënoon a taxan ay lobb wut mhm. ngànj di leen ko taalal ci jamonoy sedd jox leen ñam wu neex ñuy lekk jamonoy tàngoor mu jox leen ay wupp jox leen ndox yu sedd ñuy naan kooku bokkul ak ñi nga xam ne dañuy nekk seen goro yor karaafum ndox denc ko ci rondal ba bëggee naan nga ne ko amu fi. <laughs> moom noonu da taxaw soxna jaaratullahi mama yam na jigéen yëpp déglu de <laughs> melokaan woowu la am jaaratullahi ci doxinu sell woowu la voisine de Dieu ba yàlla fayee ko pay gu rëy gii mu am <laughs> béréb bi li gën a doy waar it mooy béréb yi gën a xat ci sëñ Tuuba soxna jaara fekk na ko béréb yi gën a xat ndakaaru gii ñu nekk ci la bokk mhm. ñetti guddi ndakaaru seere la ci mhm. keroog bi ñu fi tàbbalee sëriñ bi mhm. soxna si fekk na ko fi na ko muñal maay sa seere bañ ko tàbbalee ca bënd ga ca Gabon soxna si fekk na ko fa Abdoulaye Salim ibnul Hanbali nee na woon naarun tajjajat hal yu ñu tariha biha